ci matériel médical bi ñu wax ni dañu koy génne jaay ko ci marché noir bi notamment ci les cliniques bu mu jural tey le docteur Niang ab plainte euh, waaw jërëjëf euh, Ndeye Dime euh, effectivement polémique boobu noonu defe naa ni semaine bi ñu génn xaw na indi coow lu bari ci dëkk bi bon man nag li ma ci mën a wax mooy hmm. d'habitude man du wax loo xam ne aw ma ci ay preuve donc gëmuma ni Euh, ci hôpitaux yi am na ay professionnels de la santé yoo xam ne euh, dañuy jël matériel di ko génne ci hôpitaux publics yi di ko yóbbu dans le privé di ko mm. fa jaay en tout cas bu amee doon na loo xamante ne nii rafetul te je pense que plutôt ko muy am polémique li nga xam te ne moo am solo mooy euh, dañ war a diligenter enquête boo xamante ne nii dina wane ndax am loolu am na wala amul ndaxte fépp foo gis rek bërëb boo gis rek di nga fa gis ñoo xamante ne nii nit ñuy jaarale yoon lañ am ñu ñuy tuddee ay brebis galeuses loolu tam xëy na mun a ñàkk te Sénégal euh, ku nekk xam na ni bon boo xoolee par exemple problème mu garab yi di nga fi gis kër yoo xamante ne nii boo fa demee di nga fa gis garab yoo xam ne jaaruñu ci circuit natu normal bi. Mm-hmm. donc euh, circuit parallèle day am marché illicite day am marché noir dafay am euh, maintenant est-ce que nag réellement dañu nekk ci situation boo xam ne effectivement. Euh, agent de santé yi dañuy jël matériel hôpital di ko yóbbu dans le privé di ko jaay wala privé bi ñoom ñooy dem di approvisionné wu ci yeneen circuit yoo xam te ne circuit yu legal la wala yu légalul mm-hmm. loolu je pense que laaj na ñu ñu leeral ko euh, ñëwee ci vaccination bi gis nañu léegi am nañ plus d'un million de vaccinés mm-hmm. alors est-ce que loolu mën nañ xaar mu am impact ci taux de positivité bi waa jërëjëf euh, question vaccination boobu moom question bu am solo la ma bëggoon rek taxaw ci tuuti. Mhm. Euh, pour wax nit ñi que ni euh, ci fii ñu toll nii ci jamono bi ñu toll nii ak variant delta bi nga xam te ne dugg na si dëkk bi di fi def loo xam ne ni lu doy waar la damay faral di am ay nit ñu bëree bëri di ma woo di ma poser ay question par rapport ak vaccin bi. di ma laaj ndax am wóor na wala wóorul. Mhm. ma leen di xamal nii Euh, xaw ma vaccin wóor na wala wóorul mais li li gën a ñàkk wóor fi mu toll nii mooy bañ a vacciné wu. donc dañ toll ci jamono boo xam ne fi mu toll nii ak lu ñu mën a wax rek vacciné wu moom moo gën a wóor bañ a vacciné wu. effic dañ euh, ko euh, gëm. Mhm. bu ñu gisee dégâts yi xamante ni ñu bëri gis nañu ko seen bopp ñuy wax ni vacciné wu naa deux fois te am nañ feebar bi. très bien loolu tamit lu am solo la. parce que ginnaaw bi ma wooyee nit ñi ci ñu vacciné wu. ndax tey jii nii am na études yu wane ni euh, dans les services de réanimation yi euh, quatre-vingt-cinq pour cent patients yi fa nekk maanaam boo jëlee fukki nit yu nekk juróom-ñett yi jàpp juróom-ñeent yi par hasard ñoom vacciné wuñu mm-hmm. donc mu mel ni vacciné wu moo gën a wóor maintenant effectivement am na benn situation bu am de plus en plus dañuy gis que ne euh, am nañu ñu vacciné def coronavirus. Mm-hmm. ndax vaccin yi amu ci benn vaccin boo xam ne am na efficacité wu cent pour cent amul. Mhm. maintenant euh, ñun ci suñu wàllu bopp au Sénégal euh, c'est vrai que yenn dëkk yi nga xam ne ñu ngi vacciné wu ñoom def nañu seen ay études joxe seen ay chiffres wax lan mooy taux d'efficacité wu vaccin yi nga xam te ne moom lañ fay def man su ma sañoon ñun dañuy defal suñu bopp suñu étude bopp. Mhm. maanaam tey rien ne s'oppose à ce que déjà ñu def benn étude boo xam te ne nit ñi vacciné wu. ñu xool li ñu tuddee seen i taux d'anticorps maanaam tey ñu am benn échantillonnage bu représentatif ci nit ñi vacciné wu yépp am ci benn euh, euh, lim bu takk boo xam ne dañuy xool ci seen deret ba xam li ñuy xaar ci ñàkk leen gis nañ ko ci wala gis ñu ko ci ñu def ko ci vaccin bu nekk parce que loolu dina tax euh, maanaam jiixi jaaxa bi am ndaxam vaccin yi efficace na wala efficaceul jiixi jaaxa boobu dina deñ mais li nga xam te ne nii tey moo wóor ba wóor Euh, te ci loolu laa teg appel bi ma def mooy que gis nañ ni ñi nga xam te ne ñoo sonn loolu nekk hôpital ñi ëpp ci ñoom vacciné wuñu maintenant nag am na ñu vacciné wu ba pare def ay cas grave lu am la parce que man du wax lu amul am na ñu vacciné ba pare faatu ci ci ci coronavirus mais ñooñu xëy na seen lim faw ñu xayma ko te gëm naa ni lim boobu noonu warut a doon lim bu am solo trop. par rapport ak ñi nga xam ne ñëpp vacciné wu nañ te vaccin bi tax bi leen coronavirus tamit dalee defuñu ay forme grave tax mhm. euh, communiqué bi génn wax ne femmes enceintes yi euh, dorénavant dañu leen di tàmbali di vacciner te ñu bari xaw ci am xel bu tey lan nga ñu ci mën a wax docteur. waaw bon parce que dañu gis que ne fi mu toll nii de plus en plus variant delta bi nii dafay attaquer femmes enceintes yu baree bari ñenn ñi mu ñi ci ëpp ci ñoom mu yàq seen ëmb. ñenn ñi ëpp ci ñoom sax mu leen di rey. Hmm. ndax xam nga femme enceinte jigéen ji wérul moom immunodéprimé la maanaam tey ñun suñu yaram dafa am ay soldats dafa am système immunitaire boo xam ne mooy armée bi aar suñu suñu yaram euh, armée boobu nag dafa am situation yoo xam ne bu ci nit ki nekkee armée boobu day néew doole te bokk na ci situation boobu noonu ki ëmb ki ëmb maanaam système immunitaire am day wàññeeku lool. Hmm. donc bu ñu gisee que ni effectivement depuis quelque temps. virus bi mu ngi attaqué jigéen yi nga xam ne jigéen wérul lañ di attaqué doom yi ñu ëmb ci loolu la ñu sukkandiku déjà ci yenn pays yu bëri avant Sénégal di ko def ci la ñu sukkandiku pour vacciner euh, jigéen yi nga xam ne ay jigéen wérul lañ maintenant nag maintenant aussi li nga xam te ne beneen dëgg la mooy xam nga vaccin bi mm-hmm. vaccin coronavirus dañ ko defar ci euh, diir bu gàtt boo xam ne traditionnellement naturellement du diir boobu lañ doon defaree vaccin. Mhm. ndax vaccin euh, dafa doon loo xam ne dañ koy def ci biir yaramu doomu adama garab la. Mhm. Euh, ci yoon euh, maanaam temps bi nga xam ne moom la war a moom la ñu war a jël ngir xayma def ay étude ba xam ne vaccin bi ndax garab. Mhm. dafa war a efficace te du jur loraange. ndax garab boo gis rek posen la. léegi euh, euh, diire bi nga xam te ne moom la vaccin yi waroon jël pour mën a ñu defar ko ci diire bu normal hmm. xam ne lu efficace la du jur jàngoro hmm. waroon na mat au moins cinq ans jàpp huit ans hmm. mais coronavirus moo ñëw jaaxal ñu jaaxal boo xam te ne nii faat ci doomu aadama yi loo xam te ne malheureusement durée boobu noonu mënatuñu ko woon xaar moo tax nag de plus en plus toujours dinañuy gis loo xamante ne nii sóoraale ko woon mu feeñ loolu nag moom loolu dafa doon. loo xel mën na dal xel mën na dal justement ci vaccin yi nga xam ne euh, nit ñi ñu ngi koy vacciner wu parce que souvent souvent professeur lu ne lañ ciy dégg. Mm-hmm. Euh, que ne ñun ñi ñi ko vacciné wu déjà ay cobaye lañu euh, xamuñu bu dinañ toog benn période dina am luy feeñ ci seen yaram. spécialiste yu mel ni yéen ñoo ñoo war a mën a xamal askanu Sénégal qu'est-ce qu'il en est mm-hmm. que vaccin yooyu même bu dee diir bu ñu toog comme ni nga ko waxee pour saytu ko saytuwaat ko tooguñu diir boobu est-ce que xel mën na dal. ci yile vaccin ñuy jël ak bu mu doos bu mu munti doon. Euh, loolu man réponse bi ma la ci wax mooy. Mhm. njort bu rafet rek laa ci mën a am. Mhm. njort bu rafet lañ ci mën a am. Mhm. ndax dama la bëgg a xamal ni la garab bu ñu ko defaree ba noppi ginnaaw bi ñu saytoo ndax am garab gi lii ñu wax ne moom lay faj moom lay faj. bu ñuy xool ndaxam na garab gi du doon saafara buy jur jàngoro. dañuy xool ndax am garab gi dina jur musiba léegi léegi. ndax dana ko jur Ah. fileeg lu yàggul tuuti ndax dana ko jur fileeg bu yàgg donc dernière question boobu noonu ndax garab gi dina jur euh, musiba fileeg bu yàgg mhm. loolu amuñu assez de recul pour mën ko wax tamit njort bu rafet rek est-ce que aussi waaw non mais euh, ça rassure un peu aussi xam nga njort bu rafet boobu moo gën tey mhm. li ñu gis ni tey coronavirus di ko def mhm. di rey ay ay ay centaines de milliers de personnes dans le monde est-ce que da ngay toog ne bon man je préfère bañ am problème d'ici dix ans wala d'ici vingt ans toog coronavirus rey la teel a dee ak ak yéex a dee defe naa le choix est est fait. Mhm. li nga xam ne moo am ba am mooy. Mhm. que ne euh, fii ñu toll nii ci jamono yi ñu toll nii euh, nit ñi xamuñu sax li xew ci hôpitaux yi dëgg-dëgg. maanaam nit ñi nit ñuy faatoo dafa yéeme. service de réanimation yi nit ñi daanaka amatuñu fu ñu leen teg te coronavirus bu njëkk ba diggante daaw ak leen li ñu ci xamoon mooy. mag ñi lay faat wala muy faat ñi nga xamante ni dañoo sooxaale yenn feebar yu mel ni ki jabet ak tension wala yu ni mel mais fi mu toll nii ràññeelatul kenn xale yu ndaw a ndaw lay rey ay xale yoo xam ne amuñ sax 30 ans donc bu tolloo foofu noonu gis ne que ne vaccin bi au moins dina tax nit ki même buy def coronavirus du yegg ci cas grave yi nga xamante ne moo ko mën a lor mais bu boobaa je pense que hésitation bi hmm. mënta am après nag lan mooy xew d'ici 10 ans wala d'ici vingt ans loolu moom wax dëgg yàlla mënuma ci tontu waaw. Euh, sànq maa ngi woon ci vaccination bi ak yow. Mhm. yaa ngi wax ne bu ñu defoon étude peut-être dina am lu bari lu mu éviter lan moo tere Sénégal dem ci étude yooyu. non euh, études yooyu euh, xëy na non maanaam c'est pas trop tard ñu def ko ndax bul fàtte ne ñu ngi commencé vaccination bi fin février début mars mhm. dañ commencé vaccination bi au Sénégal vacciné guñu sax lu mat 10 pour cent population bi donc loolu c'est ñu ngi koy xalaat borom xam-xam yi ñu ngi xalaat. ñan ñoo koy xalaat parce que déjà am na ñuy posé wu la question que ni euh, comité euh, commission scientifique indépendante tey moom moo mën a dimbale askan wi ci mbas mi. non nday dimee lu ma la mën a xamal mooy man damay waxtaan ak toujours ñoo xam te ne ay immunologiste lañ maanaam tey jii nii bu ñu demoon ba war a def étude xool. deretu doomu aadama yi ba xam am na ay anticorps yu ñu mën a protéger ak ñaata temps la ñuy protéger parce que loolu yëpp dafa dafa doon loo xam ne leeraguñu. Mm-hmm. maanaam tey da ngay vacciné vaccin bi est-ce dalay protéger un mois deux mois six mois un an loolu yëpp leerul te liñ ci gis mooy ñenn ñi da di protéger lu gàtt am ñoo xam ne da di protéger lu yàgg donc loolu moo tax étude bi instant bi nii peut-être dafay prématuré pour ñu def ko mais faw ñu def ko te ñi ma ci mujjee waxtaanal ñu seen xam-xam màcc ci loolu effectivement ñu ngi waajal ngir def étude bu kon lan lañ mën a jàppee incompréhension bi nga xam te ne ni yenn sénégalais yi am nañ ko ci vaccination bi tey aujourd'hui CNGE dafa mel ni li muy lancé comme appel askan wi percevoir ko. waaw xam nga euh, foofu man question euh, maanaam réponse bi ci mën a joxe mooy euh, vaccination déjà kenn du ko forcer kenn man loolu laa gëm parce que am na ñoo xam ne ñu ngi xalaat sax comme yenn dëkk yi forcer ko nit ñi. Mm-hmm. pour man vaccination kenn du ko forcer kenn. dañu war a fexe ba def communication bu am solo boo xam ne nit ñi seen xel dina dal ci ñu dem. vacciné wu maintenant mu am ay coow mënul ñàkk. Hmm. Euh, coow li mooy est-ce que wóolu nañu wala wóoluwuñu garab yi day jóge ci dëkk tubaab yi et cetera dañu bëgg a def lii mais finalement day dimee hmm. Sénégal amul loo xam ne tey amul garab booy jël boo xam ne jógewul ci dëkk tubaab maintenant et le hmm. respect et le respect des mesures barrières parce que CNG boobu dégg nañ leen euh, ci tabaski bi ñuy ñaan askan wi ni bu ñu sañoon nañu toog seen kër tabaski ci jamono joo xamante ne ni gisoon nañu président de la république dem defi ji tournée mu mel ni CNGE dafa muur bëtam ci yeew yenn actes yoo xam ne les hommes politiques dañu koy posé. waaw boo man foofu moom li ma ci wax rek mooy lenn mooy que dañu toll ci foo xam ne fi mu toll nii euh, lépp loo xam te ne euh, day tax mbas mi bañ a law dañ ko war a bàyyi ndax bu fekkente ne amoon na benn jamono boo xam ne nit ñi yaakaaroon nañ ne coronavirus jeex na fi. ba ñu hmm. bàyyeeku man nag bokk ma woon ci ñooñu. ñi nga xam ne bokkuma woon ci ñi yaakaar ni. Hmm. Euh, coronavirus jeex na. d'accord musuma ko musuma ko kii mais li ma li ma mën a wax ci loolu mooy. Hmm, hmm. lépp loo xam te ne actuellement. day créer rassemblement. di créer loo xamante ne ni rassemblement bu mënta ñàkk parce que tamit loolu xëy na dinaa daal dinaa fa daanele. coronavirus. Euh, dafa am lu muy bañ loo xam te ne nii lépp lu mën a ñàkk ci li muy bañ. dañ ko war a bàyyi mais am na yoo xamante ne nii. lu mënta ñàkk. boo koy def tam da nga war a respecter les mesures barrières. parce que gis nañ mooy question ma la posé autorités yi dafa mel ni jàppalewuñu personnel soignant bi en l'occurrence waa CNG ngir ñu respecter les mesures barrières. waaw mais li ma la ci wax noonu leer na dama la bëgg a xamal ni la ak ku mu mënti doon. ku mu mënti doon mesure barrières yi dañ ko war a respecter mhm. parce que bu ñu respecté mesure barrières yi mhm. situation bi ñu nekk nga xamante ne nii sax ëpp nañu loxo mhm. situation bi mën na toll foo xamante nii kenn dootu mën dara donc ak képp ku mënti doon dañ toll foo xamante nii fii ñu toll nii waxi rassemblement bu hmm. mën a ñàkk hmm. waratuñ ko wax hmm. wari waxu waxu dajaloo wala ñuy ñuy ñuy fenetal feebar bi respecté wuñu mesure barrière nit ñi ñu takk seeni masque wala ñuy woote ay ay dajaloo bu mu mënti doon boo xamante